UCAB FM li a fës bis simbi

moom da koy tere yéenekaay bi xëy duñu xamal ne moom mi nga xam ne kon magistrat bi di euh, euh, moo di sarti réew mi loolee dañu koy tere laas yéenekaay moo xëy duñu ko nettali kii euh, di Pape Moussa Pape Saliou Guèye moom nag ma ngay xam le ne sukkandikoo ci code pénal bu sukkandikoo ci code électoral waaye itam sukkandikoo ci loi yi nga xam kon ñoom ñoo tënk liggéey bi nga xam kon magistrat war na ko liggéey ci biir réewum Sénégal dañu ko koy tere Cheikh Issa Sall yéenekaay bi xëy duñu xamal ne moom nag fi mu toll war naa wuy ji cour d'appel bu cees ngir mën a leeral lii nga xam ne kon moom la ñu ko joxoñ ah, ay tuuma su naataangoo yi duñu xamal nag ne luñ ci man di nemmeeku moom bëgg na nu mu leeral lépp loo xam ne kon doon na lu ko lëkkal ak li nga xam kon moom moo di administration bi Walf Fadjri Quotidien moo xëy duñu connecté ba tey su naataangoo yi duñu xamal nekk ci altine la ñu jàppoon ngir rek yi nga xam kon moom di Cheikh Issa Sall fas yéene jàkkaarloo ak naataangoom àttekat yi ko ba aljuma ji ci topp bi di ñu xamal ne luñ ci mën di nemmeeku mbir mi moom ñu ngi koy xaar bu baax a baax ginnaaw yoo xam ne kon moom dàq nañu yi nga xam ne kon jotoon nañu ko nemmeeku yéenekaay bi di ñu xamal nag ne jamono ji ñi nga xam ne kon teg na leen gën dëggantaan kay mooy administration territoriale doon préfecture yeeg sous préfet kaay bi xëy di ñu xamal ne ñoom dañ leen bàyyi woon xel bu baax waaye nag léegi gi lan moo xew dëgg-dëgg ba nag jamono ji ñu ci bëri saa ñu joxe ab dogal ñu am ci xel ñaar yéen bi l'observateur moo xëy duñu xamal nag ne luñ ci mën di nemmeeku rek diggante ñi nga xam ne ko ñoom ñoo di administration territoriale ak ñi di àttekat yi ca na doxalin bi nga xam ne ko ci liste yi nga xam ne kon na koy dëggalaat yéen kaay bi ne luñ ci mën di nemmeeku préfet dafa gisoon ne liste Yewwi Askan Wi foofu ca ndar loolee munta bokk ci wàllu ko jogante yi wuutee ak lool li nga xam ne kon cour d'appel ba wax na ko yéen kaay bii di l'observateur xëy di xamal nag ne luñ ci mën di ndemeeku kii di préfet mbir mi nag da koo bëgg a toppaat yóbbuwaat ko ko soxal kii di député bi di Moustapha Guirassy mi candidat coalition Yewwi Askan Wi foofile ca jongante bokk moom li war a li nga xam moo di commune bu Kédougou yéen kaay bi di xamal ne jamono ji kay benn sànni rek mooy la ko ca dese ndax dana ca am ndam wala

xam ne kon moom mooy mbër ma listam jamono ji moom lay topp benn sànni tàcc wooye ko dese muy cour suprême bi nga xam ne fa dem ngir nag daa man xuut li nga xam ne kon moom moo di bokkam ah, ci wàllu ko jogante yo yéeni kaay bi duñu xamal ne moom kii di Moustapha Guirassy ma ngay woo ñi di ay militantam ngir ñu ànd ko dal ci coow li yéeni kaay bi duñu xamal ne jamono ji kii di Guirassy kay mayul dara kii di préfet bu Kédougou lu ne yàkk na ko vox populi yéeni ko nettali nu xamal ne lu ko dal kii di préfet moom la ko jiñ ndax nee na moom mooy gàntal li nga xam ne kon moom moo di listam yéeni kaay bi xëy di ji cour suprême ba ko dese kay fi mu toll ni fa la xool ay gëtam ngir mën a xool dëgg-dëgg ndax dara mën a bokk ci wàllu ko jogante yéeni kaay bi xëy di nu xamal ne bëri na ci ay gox yoo xam ne kon préfet yi ak sous préfet nañ bokk li nga xam ne kon moom moo di ku jëk politique yi ci biir jongante administration territoriale yéeni kaay bi naka jamono ji loo xam ne dañu koo bàyyi woon xel ñu ci bëri bëri weg leen lool waaye nag fi mu toll nii dafa mel ni daal sutura si nga xam ne kon moo nekkoon seen diggante ak askanu lu ci bëri ma ngay mujjeeku ndax nag bëri na ay dogal yoo xam ne kon dañu koy jël askanu lànk na dañu ko dégg yéen kaay bi ne jamono leen di jiiñ mooy ak parparloo rawatina wàllu politique yi ku nekk ca nguur ga ñu jox la loxo yéen kaay bi xëy di xamal ne administration territoriale kay ñoom war a noonu xoolaat seen bopp bu baax a baax su naataango yi di quotidien di sud du quotidien xëy di ñu xamal nag ne jamono a wax yéen kaay bi dina xamal ne woy politique yi bëri na si ñoo xam ne kon a xamoon bi xëy dina xamal ne bëri na ci ay jëf yoo xam ne kon dañu koy jëf kenn mënul xam noo koy tegtale yéen kaay jafe-jafe dëggantaan la solo yéen kaay moom xëy samp ab laaj ne ñii nga xam ne ñoom ñooy yuuxoo ko tëbaka dal di laaj ay ndomba tànk bëgg a jiite bokk moomali lan moo nekk nekk ca ginnaaw ga yéenekaay bi ne lii nga xam ne kon moom moo di mbir moom xanaa daa am leneen lu ca nekk loo xam ne kon askanu xamuñu ko yéenekaay bi ne jamono ji ndax mbir yi nga xam moom la ni xëcc seen mbiri bopp dong mooy li leen tax a jóg wala ndax danoo bëgg a jóg seen ay bokk moom it yéenekaay bi ne mbir mi nag war nañ koo mën a jeex dëgg-dëgg xam dëgg-dëgg lan moo xew ci li ba booy kenn jàmm nekk di xëccoo li nga xam ne kon moom moo di ndomba tànk yéenekaay bi ne jamono ji kay mbir moom war nañ koo mën a xoolaat gëstu ko baax baax la solo yéenekaay moo xëy samp ay laajam ba tey sunu naataango yi li nu xamal ne mbir mi kay jamono ji nar naa metti lool ci diggante yi way politique yi moo xam ne ci nguur gi ñu ci ko jegi kenn nar ta may sa moroom dara enquête yéeni kaay moom ma nga ca taxe yi nga xam ne kon jamono ji day gën di yokk ci biir réewum Sénégal yéeni kaay bi xamal ne bokk na ci la ko mooy lu jëm ci wàllu ko industrie industrie doon usines yi nekk ci biir réew mi ñu ci bëri ñu ngay am ay jafe-jafe yéeni kaay bi xëy du nu xamal ne contrôle yi nga xam ne kon moom lañ koy def ci wàll ko fiscalité doon taxe yi ñu ngi leen koy fayu loole indil na leen dëggantaan ay jafe xam ne kon bëri na si kon ña ngay tuxu mtowa Sénégal doon nag kërug usine goo xam kon wàllum tux la doon lijjanti doon ko defar ci biir réewum Sénégal ma ngay jëli xam ne kon xoj nañ leen ba ba doon lii di wàllu taxi mooy leen indil jafe-jafe yéen bi ne bokk na ci li nga xam ne kon moom moo di wàllum wér yu nekk ci biir réewum Sénégal mënatu noonu nooy bu baax yéen bi xëy dinu xamal ne nguur gi buñ gaawul jóg boo sàggantu làmbaay dana ñaaw enquête yéen moo xëy di artu noo koy yëglu kaay bi di le témoin quotidien moom nag ma nga ca député yi nga xam ne kon ñoom taxawal nan beneen nag loi bi de finance rectificative boo xam ne kon yéenekaay bi moo xëy duñu xamal ne lu jëm ci wàllu budget moom lañu bëgg xoolaat yéenekaay bi duñu xamal nag ne lu ñu ci mën di ji nga xam ne kon lii di dépense yi doon li ñuy jëfandikoo loolee nag ma ngay gën di bëri waaye nag li nga xam moom di recettes yi doon nag fi ñuy jële koppar yi dafay gën di am ay jafe-jafe yéenekaay bi duñu xamal ne ko jamono ji wàllu ko finance moom jafe-jafe dëggantaan la ñu cay dund ba tey yéenekaay bi bi duñu xamal ne budget bi nga xam ne kon moom a la teg bëtam ba jongante jël a xam ñoom ñoo di askan wi mën ko jox loxo Walfadjri quotidien moo xëy dinu ko nettali eMédia point sn moom ma nga ca mbi kàddu yi nga xam ne kon xalif général des Tidiane doon na ko yëkkati ki tey ji sunu naataangoy eMédia point sn nekk ci internet bi ñoo xëy di xamal ne xalif général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour moom nag yëkkati ay kaddu ni nga xam ne ko noonu lañ ko digge woon ni ki talaatay tey ji fukk juróom-benn fan ci weeru novembre moom nag kii di xalif général des Tidiane dëggal na ne jumaa yi nga xam ne tëjoon nañ leen ba mbas mi duggee ak léegi ubbi na ci ak ko xam le ne mbas mi ma ngi a baax moom xalif bi dem julli ji ku nekk fa nga bëgg a jullee ji na nga fa dem waaye nag balaa ñoo julli ci jumaa yi yépp nan ko raxas setaatal ko bu baax a baax yénn kaay bi xëy dunu xamal ne xaalif général des Tidianes ma ngay xam ne ne yi doonul ay garab yuy faj waaye nag dafay aar askan wi kon nanu ca bàyyi xel eMédia point sn nekk ci internet bi moo ñu koy nettali igfm point sn yéen kaay la moom itam bu nekk ci internet bi mag ñuy waxal ci wàllu ko yoon mbirum mi nga xam ne kon moo yi nga xam ne kon ak la wax ci moom moom bàyyi nañu ko bàyyi néggandiku jamono ju Kilifeu moom lànk nanu ma nga ñu téye ca kaso ba yéen kaay bi xëy di ñu xamal nag ne luñ ci mën di nemmeeku de jafe-jafe yu activité yi fi mu toll nii jeexagul yéen kaay bi di ñu xamal nag ne ki nga xam ne kon moom moo di Landing Mbessane Seck ñu gën ko xam ci Kilifeu ak Simon Kouka ñoom nag ñu ngi leen defoon mandat de dépôt euh, ginnaaw nag fukki fan nag juróom yi njëkk ci weer sattumbar bi nga xam ne ko moom nañu weesu ca ko defoon doon juge d'instruction bu deuxième ca Ndakaaru yoo xam ne ko jaare dara jaaru ca yéen yéeni bi Dakar Actu nu koy jeexale su naataango yi nekk ci internet bi ña ca mbas mi di coronavirus yéeni kaay bi di nu xamal ne réewum Sénégal talaatay tey ji fukk ak juróom benn fan ci weer novembre atum